asalaamaaleykum euh, mbokk internautes yi seetaan 3W allo Dakar point sn yéen a ngi ànd Ndalu Ndakaaru tey nag euh, yéen a seen émission sunu gan ah. ma dalal euh, sama gan koo xamante ni kenn dootu ko laajte borom mouvement jàmmi réew mi salaamaaleykum Papa Ndiaye. maaleykum salaam Ndalu Ndakaaru. ñuy waa allo Dakar nag ndax liggéey bi ngeen am ci man boo boole ngi seen biir dama yàgg leen nag franchement di leen ñaan yàlla yoon bi ngeen jël yàlla président Papa Ndiaye Ngalgua euh, borom mouvement jamm réew mi est ce que ñu nañoo xam euh, li nga xamanteni moy euh, mouvement jamm réew mi lu ko taxaju a ah? lan mo taxaju mouvement jamm rew jàmmi réew dal da ka lol dinaa ci sawar tontu parce que Sénégal ko xam xam ni rew jamm la war a doon ku suñu mam yi yëpp maam suñu Tuubaa maam suñu Aji Maalik ñoom ñëpp seen ñaan moy jamm aduna jamm ay alaxira moo tax ñu doon sonn ci jàmm yàlla comme ñun ñu meññee ci côté yooyu gis seen lépp jàmm ak ñu fi bàyyi woon sax comme baax ko suñu fan mën suñu saani suñu maamu Lamine Ba seen Amadou Mansour Sy ñun ñëpp ñoom ay jàmm yu mos a yéene réew ba ci xasida boo dem ci ñoom ñu ngi ñaan jàmm yàlla yi am jàmm ak jàmm àllaaxira comme ñoo ñooy suñu ay référence bu ñu gisee réew mu yëngu rek xëy na amuñu benn martaba xëy na amuñu benn doole bi mu yàlla moo ci xiir ci wàllu ngëm-ngëm ni Sénégal jàmm rek moo fi xëj boo tax man ak sama mbooloo mu takku macha allah ñu jóg ñu dégg yëngu-yëngu ci réew mi lu yëg lu nit yëg ak lu ci yëgul ñu ngi koy dox te boobaa léegi ñu ngi def ay at li ci gën neex daal Ndakaar mooy boolewu ci xew léegi mooy kumbal yi ci kaw. ah di leen fàttali ni ngeen ñu xool tamit ci euh, Google plus waa président Papa Ndiaye ko dégg naa ñu ne mouvement bi laata muy juddu song sa dàll képp koo xam ni kilifa diine la ci réew mi dem nga seeti ko ba am ci ndigal am na wala am waaw loolu parce que eh, nit ku jox ko ne nga war am kilifa bi yàlla dogalee ji am xalaat bi nag samay xarit boobu télé boo taal rajo boo déglu da tiit ci waxtaan ak samay xarit bokk man vision man leen sawee li nañ jug taxaw parce que ñun tam réew mi ki ëppaleñ ci nak kenn ëppu ñu kenn ëppaluñ parce que bu tàkkee suñu ko lay tak kon dañuy jëm bien que xeyna na kattan euh fay fay bi amuñu ko way amna suñu yéne ci lañ jóg waxtaan nak euh, suñu groupe bi fekk ki wax mam malik si di doom Cheikh Yass al maktoum sama xarit dama ci waxtaan ak ñoom ñu ne Pape de Lula trop dama ko wax gorki ci suba ga mu woo ma ni ma góor gi neen nañ ci taxaw léegi te na nga jub dem seet sa bay Abdoul Aziz Al Amin ci Tiwaawan boo fa nañ ko ne dem Touba seet seen si dama wallaahi noonu lañ ko defee ñu jóge fa dem si Abdoul Aziz comme mu doon jege ci te boobu sax nee na moom lu koy yéem ñett nit ñëw nañ ci moom ne waaye wax leen ci réew mi mi ngi tàkk bi ma ñëwee wax ko ko mu ne ma dem ne def waaru ci yàlla moom si Abdoul Aziz Amin kaset yaa ngi fi de malen ko jox mo ko mu kontaan bamay dem may andak maa ngi si Moutala Mbacke ko Daaru salam may andak Cheikh Anta Mbacke may andak ànd ak Ibou Thiaw bu Mamraan Khalifa Kunta ak kilifa yu bari kero dafa bekk ba bendal bend yu rëy kon waratoo def len lu lu indi indi jàmm ci rew ba ci jógee nak fii dem nañ Thiénaba dem nañ Ndiassane dem si Niass bu bàyyi Niass ci la bokk te itam maa ngi gëm de passage El Hadj Mbacke yu fay. maa ngi euh, profité di dugg Tiwaawan ah dugg Touba këru diine yëpp kenn ku ci nekk man dalu Ndakaaru maa ngi lay euh, ziar ah di leen jox seen wàccuwaay di wax ni seen ñaan dafa baax loolu ci réew mi euh, Papa ngal Ngalgou dañoo seet léegi Ndakaaru ah ku jóg ne day dox jàmm ku jóg ne sama mouvement damay dox jàmm dégg naa ñu ne.

mën naa la wax tur comme kilifa la am ñu ñëwoon ci palais ba ñëw ci sama tur man di wut audience. ci Ngal mouvement Ndiaye mi réew yàlla dafa dogal nag wallaahi xam nga musuma bind audience man. parce que li ñuy def Macky Sall mooy président de. waaye nag gën maa gën maa bëgg réew mi nag mooy président bi de moom yàlla tax mais gën maa bëgg jàmm ci réew mi nag kon soxlawul moo tax man la ñi ngay wax noonu li li leen tax a jóg ak man li ma dem sama tur ñu renvoyé leen ci kilifa gu mag moom woote ma ko wax ñaareel ba am na ñeneen ñu woote woon fii ci hôtel dama dama hôtel bi di a dox lu mais bu wax ne comme yéene ñoo bokkul xeex la ñu mujjee xam nga fu jàmm di xeex moom jàmm amatu fa te boobu tam benn kilifa ci ci réew ma man la diw man quoi man lay dañu yow xëy na gisoo ñu mais ñu ngi lay suivre bu baax mu ne ma foo dem ak loo wax xam nañ ko ci jàmm réew mi donc lii xew tey ci barab boobu ba nañu lañ farante ñu xam nañ lépp mais continuer ci yoon boobu ma man dama koy def wallahi mënu ma la wax sax lu tax may may may doxe mais nag avant mouvement bi tout jeune wallahi ci côté famille ci côté relation xaw ma lan ku ci am am réeroo rek ñu ne xamaa famille lay ñëw kon dama koy sant yàlla te boobu ba léegi nag maa ngi koy dox yàlla dama ci defal ndam benn daal moom taxaw a difficile rek boo xam ne si ñaari nit la ñu na deux ans maa ngi ciy wax démb laa mujjee wax ak kenn te ma bàyyi du bàyyi parce que damay wax nit ki même su ngeen jotee ci benn mbir tey fekk na ngeen seq junni yu rafet léegi junni yu rafet yooyu nag mooy moo moo war a nëbb benn bu ñaaw bi parce que yàlla sax nee na ci alxuraan soo xamee ne daal Ndakaaru benn bu baax xamal ko dina fi bon yàlla neen waxal ko benn bu baax bi te dina fi dina bon parce que yàlla mi ngi tiim waay nekk ak loo def xam na boo nekkee moom weer la ay suturaal nit kon kenn ku ne di suturaal moo tax ci côté boobu ci gëm sama baay El Hadj Ngal bu yàlla yàlla yokk leen dafa nekkoon kilifa nekkoon na député à l'Assemblée nationale nekkoon maire Mboro kon donc grand commerçant amoon na ñëpp jàmm mais ci mujjug dundam ndeysaan dama ko wax sama xol ko dafay tooy parce que dafa solo ci man lool mu ne ma paap ma ne ko naam paap mu ne ma kër gi del defar rek mu ne soo defaree dina baax te boo yàqee day yàq boo defaree mu baax euh, boo yàqoo mu yàqu maa ngi di wax ni euh, maa ngi dalal tey seen émission sunu gan man dalu ndakaaru papa ngal gu njaay ah di di ndanaan di ku baax ah di borom eh, jammi rew eh, mi papa ndangu njaay eh, digënté ñaari grand seigne dakar senegal sénégal ku ne yaa ci wax président mi ci wax jàmm am seen digënté en tant que borom mouvement jammi rew mi lan nga mëna wax ci lolu te ñu ko ku ñu xam xam ni que suñu vision yépp mooy côté diine côté tarixa côté mbokk yi yëpp nekk benn ndax loolu rek moom indi jàmm ci biir Sénégal bi ñu ko déggee dañ ko rafetlu dañ ko rafetlu am na sax ay kilifa yu mu jot a ndax kenn ki mi Pape Diagne sama wëlëla la sama xarit la te gis ba bëcc li may dox ni sax daf ci dégg donc bi mu déggee président wax loolu ci foofu nag dama ci gërëm président parce que moom loolu moo ko war ndax moom mooy kilifa réew mi te gis nga dafa mel ni sax li ñu dox nii wallaahi am na sax ñu foog ni li gën a garaaw dafa am ñu foog ñu foog ne

ñu naan dina yàqu ñoom du yàqu violence bi lan ngay wax ci sport bi. Euh, li ma ciy wax mooy ci côté yëpp sax laay waxee mooy il faut que dellusiwaat lenn lu nekk la ko waraloon mooy làmb loolu tax ñu naan làmb démb rek maa ngi seetaan ndeysaan Ablaye Thiaw maa ngi koy nuyu au passage mu benn kii dafa yox sàmb di xalat Lamine Diack ndeysaan sa baax Lamine Diack maa ngi koy ñaanal yàlla moom tamit de passage na ko mag mu baax la ba dégg mu wax ci làmb ji di wax ne làmb dafa am lu ko tax gis nga daaw Ndakaar lenn nekk dañ ko dañ ko teg ca la waral loolu mooy lu tax ñaan làmb ñun bi nekk xale yi ndaw dañaan gis làmb fa amoon suñu kër ci mbooloo paa bi dafa defoon dafa defoon dëkk benn làmb ju mag tous les samedi wala dimanche maa ngi koy rappelé wu boobu ay xayale bi daan ñëw takk lu mat fukki rek ñaar def sa su vêtement laa ci poudre loolu ñuy wax ren seega ah, loolu mooy ren seega waaw poudre bi ci baat bi ah, ah. loolu mooy ren seega bu fay jun nag en tant que yaa ngi topp mbëri sa topp mbëri dugg ci biir mu am ay bàkku am ambiance am tradition xam nga géwali di tëgg ñii di way dafa am en dehors de la lutte ni dafa am benn ambiance bu am ci laam dafa am benn ambiance bu am ci laam mooy da nga fay fekk commune du du du yaakaar yi am na ñu nga xam ne comme ay société yi nag da nga leen dëbb tey man bala la may dem làmb mais du sekk yaaykat yi moom mooy yóbbu. du sekk yaaykat yi. ak ak ak ak Ndiku Cuun. ak ak booy Moussa Diouf. donc chaque chose nañ ko delloo ci liñ ko sos sose woon mooy mbër yi comme ni ko Paa bi waxee démb xalaat léegi dootoo xamee ndax ay mbër lañu ay jockey lañu wala ay ay ay basket basket. ak beaucoup plus d'étrangers yu koy suivre nañ ko delloo ci cosaan bi mooy nañu dàngal mbër yi di bàkku. mais mais dama gis tamit loo xam ni dafa parce que barki démb ah ju mat ji euh, mm, Modou Lo ak euh, ak Gris Bordeaux maa nga fa woon ah maa nga woon ba ceetu saako yi mais dama xool euh, bi ñuy bi ñuy bi ñuy am na benn benn moment ñu ngi bàkku ñi nga xam ni mooy waa ñu ngi ay jaxatu yëkkati ko téye ko kenn ku ci nekk sa loxo bi. demalul ba léegi indi problème bu garaaw ci làmb loolu may kenn ndam su la may ndam yow su ba nga dem ut téeméer ut sa yow. bi mbër bu yor loolu. foofu fekk moom la ñuy mujjee daan. en général xam nga communication dafa am solo di nga toog ci émission ñuy defal interview mbëri ñaari mbëri jàkkaarloo fekk junni de millions de personnes ñu ngi lay seetaan mais am na kàddu yooyu wax yu ñàkk teggin. nit kilifa mën a toog jëppi la rek yàlla jëppi la hmm. waaw maintenant yi ba ci animateur télévision yi parce que booy wax ak télévision dafa am comportement boo war a waxee ak nit ñi am na émission yi daf ci télévision yi nii bàkk yi rasulilahi suma amoon ndigal dañ koy arrêté noonu kon euh, ba tey ñu daal di ànd nag ak service commercial ah président daal di dem publicité te ñëwaat à tout de suite Forte d'une expérience et d'une expertise de plus de 65 ans dans le domaine de l'immobilier, la CICAPESA a mis en œuvre d'importantes réalisations pour faire de Dakar une ville moderne. Afin de trouver une réponse concrète aux problèmes actuels de l'habitat au Sénégal, la CICAP, signataire d'un contrat de performance avec l'État du Sénégal, met à la disposition des populations une large gamme de produits immobiliers. Ces logements de type F3, F4, F5 et F6 d'une qualité architecturale moderne, alliant confort, sécurité et économie d'énergie, sont proposés à des prix défiant toute concurrence. Dans cette dynamique, la SICAP réalise trois nouvelles cités. SICAP Grandbau est un complexe résidentiel situé à Grand Bau, comprenant des villas basses de type F3 sur 150 mètres carrés, des villas R1 F5 sur 150 mètres carrés et F6 sur 300 mètres carrés, ainsi que des appartements de type F4 dans des immeubles de standing. La cité est fermée avec une guérite à l'entrée, gardée par des vigiles et équipée de caméras de surveillance. Tout un dispositif géré par un syndic de copropriété pour assurer le confort, la tranquillité et la sécurité des résidents. Avec SICAP Lagrose, la SICAP rend l'accès au logement encore plus facile. Situé à quelques encablures du lac Rose, le programme immobilier SIGAP Lac Rose est composé de logements de type F3 et F4 répondant parfaitement aux besoins des clients. Avec 10 500 000 francs CFA, devenez propriétaire d'une villa de 3 pièces composée de deux chambres et salon sur 150 mètres carrés. Plus besoin de chercher ailleurs les Brises du Lac Rose vous offrent l'opportunité de résider et d'investir dans un quartier calme, serein, gage d'une bonne qualité de vie. Le projet SICAP Rudis 10 se distingue par une offre diversifiée d'appartements de type F4 sur une superficie de 120 mètres carrés. Ils sont réalisés dans des immeubles R4 équipés d'ascenseurs, de panneaux et chauffe-eau solaires afin d'apporter une plus grande commodité à ce complexe. Des endroits propices à la promenade et à la détente ainsi que des espaces verts, un jardin public, une aire de jeu procurent aux habitants une grande convivialité. Acheter à la PESA, c'est s'offrir un logement de qualité. Acheter à la pesa c'est sécuriser son investissement. Réception des véhicules des maires ce mardi 26 juillet 2016 au CICES. Le ministre Abdoulaye Djoussar décerne un satisfait à Cheikh Amar et valide la commande de l'État, réceptionnant les véhicules utilitaires commandés par l'État à la société TSE. Le ministre en charge des collectivités locales a constaté de visu la fonctionnalité des bagnoles avant de décerner un satisfait à l'opérateur économique Cheikh Amar pour avoir respecté le cahier de charges

ba tey sa kal la parce que ay cousin ay cousin lañu ma leen loolu ma chance Sénégal tey pël bi tey bi ki doon ak benn tëgg tey bu xam ne kii tëgg la rek mooy histoire amatu ma ne loolu chance Sénégal moo tax ñu am jàmm jooju deuxièmement ñu am ay kilifa yu nga xam ni Sénégal li mu nekk Sénégal amul ay amul ay jama amul or amul pétrole am na ci yaakaar nag yàlla na yàlla na ñëw mais jàmm ji fi am ginnaaw yàlla dañ ko sant suñu maam yu baax yi Serigne Niang moo téye réew mi moo wax loolu nag loo tax ñu gën ñi fonk ñi ngi jéem a seet invité ma fu nekk dem naa ba ci euh, militaires yi nga xam ne dañu dañu leen rey un jour ñuy ñuy ñuy ñuy dekkoo seen jabar yi ñu invité ma fa. non man man wax nañ ma ko wax yaa ngi dégg dañ may woo di xalaat parce que mu ngi tudd euh, mouvement no peace for evil tudd. bu fekkee ba am samay contact invité ma boo xoolee ci net bi di ko gis. donc te li may sant yàlla rek mooy defuñu dara ngir tiitaru. defuñu dara nga ci ku bëgg ku ngi dégg ñi ñi jàmm ñor dëggantaan ñu bokkuñu idéologie ñi nga fexe dañuy jot di ñu jàppal ci wàllu xalaat ak ci wàllu xel donc dañuy sant yàlla bu ñu amee boobu initiative ak sumay xarit ba muy génn réew mi sant nañ ci yàlla bu baax a baax a baax. bi ñu ngi may ñu ngi may tàllal loxo di ma wan ni li li woon ci waxtu yi jeex na. Eh, lan ngay lan ngay lan ngay tàggatoo di nuyu ah Mansour ah sama caméraman ak Ousmane maa ngi nuyu tamit eh, suñu rédacteur en chef ah DG boss Massamba Thiam ah tàggatoo. waaw xanaa leen gërëm vraiment di leen remercier bu baax a baax a baax a baax li tax ngeen xalaat ma le fait ngeen xalaat ma invité ma franchement parler et may ngeen ma occasion aussi lu ma musul wax agent di ko leeral sax man ma a ko fii parce que eh, dafa yàlla daf ñu nattoo wax li ñu gëmul du suñu vocation

li nga yëngu yàlla ci yàlla defal ndam su defee jàmm am ci réew mi jàmm Sénégal jàmm la xam ci njaboot bi di gërëm nag samay njaboot di nuyu nag nga baal ma ma soxla naa si lu maam da baax di nuyu si Mori Kéman Mbacke di nuyu si Cheikhouna Abo di nuyu maam Malick si Almansour di nuyu Iba Laay Iba Iba Thiaw Laay di nuyu euh, Khalifa Kunta di nuyu ci si Anta Mbacke am nga ñëpp dañuy dañuy jàppale ci wàllu xel ak ma kii Mbacké Faye vraiment ñu ngi leen di gërëm di sant di gërëm Sénégal yëpp di ñaan yàlla Sénégal ñi nga xam woon ba Sénégal ba at li teg ñu bët nii ci jàmm gi ñu am dalaloon mooy Papa Ngalgou Ndiaye président eh, eh, mouvement jàmm réew mi